dafa ñëwoon décidé day retenir dossier bi maanaam daf koy atte ak lu mënti xew ak lu ñu mënti wax gis ngeen keroog yéen ñëpp di xew ni ñu xeexee pour am renvoi ba ñu ñëwaatee tamit ca date ba ca topp gis ngeen ne difficilement la ñu am renvoi bi alors que bés boobu ay avocat yu bëri ñu ngi doon soog a constitué wu jotuñu woon am dossier bi ndax dossier bi dañ ko làqoon bu leen fàtte loolu donc condition yooyu mënuñu si woon atte dossier gis ngeen tamit ne suñu client ni président Ousmane Sonko traitement bañ ko réserver këram dañ koy barricader la veille wala l'avant-veille du mën a génn du mën a dem kenn du mën a ñëw kenn du mën a dem gis ngeen également anam yi nga xam ne moom lañ koy indee ci biir tribunal bu mujj bi moo ci raw ndax otom dañ ko daj gazé ko gazé avocat bi nekkoon si biir gis ngeen condition yi mu ñëwee taxaw keroog ca audience tey nag li fi xew dafa jéggi day li xew mooy ñun ñi nga xam ne ñoo koy layal kenn si ñun déjà démb dañ ko notifié ne ko yow mënatoo layal président Ousmane Sonko parce que suspend nañ la procédure disciplinaire moom am si sa ndot loolu noppeegul ba ñu yeewoo tey fajar ñu informé nañu beneen naataagoo avocat bi nga xam ne bokk na si ñu président Ousmane Sonko wóolu muy Juan Branco te muy avocat xarañ ba mu wàccee fii si tarmac aéroport Blaise dañ koo dàq ci anam yu ñaaw loolu yëpp ba mu amee ñu ñëw tey ñu ne bi si nga xam condition yi nga xam ne tey jii ñoo lañ taxawee si ñëw dafay diis loor ñu tàmbali liggéey bi ñu ngi lay ñaan nga may ñu ab suspension ay waxuñu sax waxtu waaye ay simili

ca pompe bañ ko pompé woon keroog daf si jërale ay gañu yu ko xamné daf koy laaj mu toog noppalu té te ko googu mi ngi wara a jeex suba waye gis ngeen né may ñu ko may ñu ñun fa ñu exposé wax joj ñuy rappelé né yoon bi nga xamné ne yoon fi Sénégal gi ñu dëkk dafa am ay disposition yo xamné mo teunk tënk lépp te mo teunk juge bobu noonu àttekat benn si bobu moy li ñuy wax article 403 code de procédure pénale texte bobu dafa pré prévoir régler situation bi xew tay ndax texte bi dafa ne Soudé dee atté dafa am problème wërgu yaram ñu constater ko té yaakaar naa liy constaté wér yaram moy certificat médical ñetti certificat médical lañu indi donc koku noonu bu dee constater nañu situation am juge bi kat bi amna sañ-sañ yoon may na mu constater lolu désigner ben collègue magistrat mu dem ca këru kooku wala fañ ko denc ci bërëb euh, maison d'arrêt ba euh, poser ko fa ay question vérifier bopam si yan anam la toogee ak lan mo waral tay situation bi am ba tax mënul présenter yoon mee ko prévoir ñu gis ne loolu non yëpp juge bi da ko jël faxas tek fa ne dossier bi amul kenn kenn kenn ku ko mën a mu atte yemuñu si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 honorable député nga xam kérok keroog bi première Aïda Mbodj honorable député nga xam kérok ba premier ministre démé fële ci assemblée nationale wax fa sa waxu product ba mom téwé nako té koku tamit yakarna ay kàddam mënoon na leeral bi bi si mujj moy Clédor Sène du ma ko présenter xam ngeen bu baax ay position par rapport ak product. Waye yoy yëpp ci bi daf see waxu au contraire gis nañ né tay ji amul won leen leen leen lu ko mënoon tere mu atti dossier bi ba si sax bu ko jaralee mu topp avocat yi mu def loolu nag nekk lu tiis nekk lu métti lu ñuy nakkarlu ndax euh, tey jii bu ñu amee ay nawle ñoo xam ne dañoo jóge ci yeneen bitim réew te ñoom réew yooyu ñu nekk ñun ñooy seen référence ñun lañuy roy bu ñu gisee tey fii ci Sénégal ñu doxalee nii ñun dañ ci am gàcc waaw foofu tamit il faut ma leeral ko il faut ma leeral ko ndax euh, du caagin que ne dañoo génn

waaw donc ñu ngi may informé léegi ne ma tribunal yemul si àtte dossier bi rek waaye joxe na àttam joxe na délibéram te loolu mu nekk si mu nekk lu ñu yéem ñu lu ñu xamul lu ñu lu ñu xam lu donc àtte na président Ousmane Sonko nee na teg nañu ko daan ñaari weer yoo xam ne di ndax da ngeen appel. dinañ en français en français en français. laissez-nous s'il vous plaît prendre la décision. je vais en que. le si le prévenu n'est pas défendu. Le tribunal a l'obligation de juger sereinement et de voir s'il n'a pas de motifs et de moyens de relaxer ou bien d'annuler la peine. Nous ne sommes pas préoccupés de ça. En fait, c'est un calendrier politique. ce calendrier politique, il faut qu'il réussisse à obtenir une décision définitive d'ici le mois. Nous sommes dans une logique politicien. voilà donc léegi man je termine en tant que témoin